Yeah, yeah, njam for heavy, it's all golle bonde en dam un meurtre crapuleux et inqualifiable. Le jeune Murtala Diop, qui était parti à Touba en début de semaine pour les besoins du Magal, a été sauvagement tué par un charité dans la nuit du mercredi au jeudi. Selon nos informations, Murtala a quitté vers les coups de 22 heures de garage d'Aro chez El Maliki, son oncle qui quitté avec sa maman le temps du Magal, pour effectuer son ziar à la grande mosquée de Touba. En cours de route, il aurait eu un accrochage avec un charité, lequel n'a pas hésité de sortir sa machette pour tuer froidement le jeune Murtala. Pour rappel, Murtala Job habitait à djamogen précisément au quartier Madina Maren, dans la commune de tuaon un Fils de Djen Diop et de Ney le jeune Murtala était aussi un cousin du chargé de communication de Mimi National 2024, en l'occurrence le journaliste Bassi Roudjan. Selon toujours nos informations, le meurtrier de Murtala a été arrêté par les Limiers. Actuellement, il est au commissariat de Touba. Le corps sans vie du jeune Murtala a été déposé à l'hôpital Matlaboul Fawzini de Touba. Nakar ak le la ñu yewoo tey ci suba ci li nga Touba atum gannaaw tiis nga xamante ne dal na ci kaw doomu jàmm gën bi nga xamante ne mu ngi wuyoo ci turu Mourtala Diop benn dawalkatu charrette moo ko faat ci guddik àllarba nee nañu nag li nga xamante ne moom mooy faatu bakkeen Mourtala Diop bile ñawteef gënu ko rëy Mourtala Diop nee nañu nag dafa demoon ca diwaanu Touba ci li nga xamante ne moom mooy début de semaine bi ngir def li nga xamante ne moom mooy grand magal bu Touba daal di koy nag féete ak njabootam dafa nag ñëw fa nga xamante ne moom mooy ca kër nijaayam boobu nga xamante moom muy El Hadj Malick Guèye ba 22h jotee la jóge ca garage daaru daal di dem fa nga xamante ne moom mooy ca grande mosquée bu Touba ngir amal ab a ca yoon ba fa la benn dawalkatu charrette ñoom ñaar jàppante mu jël li nga xamante ne moom mooy jaasi daal di jam ki nga xamante ne moom mooy Mourtala Diop ci saa si la génn àdduna acik fàttali Mourtala Diop mu ngi nag dëkk fi nga xamante ne moom mooy ca diwaanu jàmm gën jaksaw ca quartier boobu ñuy woowee Madina Marème saw dinañu nak nag Mourtala Diop la won ci ki nga xamante ne moy item job ak Ndeye Khady itam cousin la ci journaliste bi nga xamante mom moy jité cellule de communication bi mi 2024 di journaliste bi nga xamante mom moy Cheikh Bassirou Diagne kiko police teg nañu ko loxo mu nga nak fa nga mom moy commissariat bu Touba jamono jilé néew Mourtala Diop jël ko ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ba nekké ci Touba. I, heli wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndaare aduna ko golle bonde en dam boni futi